tey ajuma 13 mars 2020 institut pasteur de dakar jox na ministère de la santé résultat examen virologique maanaam examen yi nga xam ne def nañ ko tey bilan bi lii la joxe fukk benn patient contact déclaré nañ leen positif au coronavirus maanaam fukk benn patient am nañu coronavirus ci bésu tey bi mooy patient yi nga xam ne ñooy jegewaale patient boobu nga xam ne dafa jóge Italie muy suñu mbokk bi jóge Italie te ñu déclaré ko positif le 11 mars 2020 patient yooyu ñu ngi leen di te centre de santé Daaru Mandan nga xam ne léegi centre de santé boobu traitement cas positif u coronavirus rek lay def foofu ci Touba ci malade yi ñu hospitalisé service maladie infectieuse bu Fann am na malade boo xam ne mu ngi am quatre-vingts ans jóge woon Paris ñëw Sénégal ñu déclaré ko positif le 2 mars kooku def nañu premier test de contrôle test de contrôle bi ñu def wone na ne doomu jàngoro bi nekkul ci yaramam mais niñ koy defee balaa ñuy déclarer ne malade boobu wër na il faut ñu def deuxième test bi deuxième test bi dinañ ko def fii ñaari fan malade yi nga xam ne ñu ngi leen di hospitaliser di leen traiter donc service maladie infectieuse ak fële ci Touba ci centre de santé bi seen état de santé mu ngi évoluer favorablement ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi ci ñu ànd ak dal ànd ak sérénité ba pare di déglu tegtal waa kër docteur maa ngi bàyyi docteur Bousso mu ñëwaat ci li nga xam ne mooy sujet contact yooyu mu annoncé woon démb ngeen xam ne ñoom la ñuy topp di leen prélever pour def analyse yi maa ngi docteur Bousso vous avez la parole